waaye ah, mu jëpp sa bi mu réer dara jaru ko su ñëwaatoon mënta weesu màggal gi fam bàyyee woon rek la jàmbaaram ji sofe ànd ak taalibe dëggu yi yu baax yi kenn ku nekk rek jël màggal gi def ko sag màggal waaye nag kooku la Serigne Saliou waxoon ne ko sag màggal mooy samak màggal sag màggal mooy samak màggal màggaluk sëriñ Saaliw nag mënta ndaw mënta tuuti ca màggal yi gën a kawe ca lay bokk kon bu nu ñëwee ci ëttam bii nga xam ne fi lañ ko daan fekk muy waaxu rek du lekk du naan du tal dara ma ngay xool nag yan naga jëm bërëb sàngam yan xara jëm bërëb sàngam ana wàññi di saytu di di di di toppatoo njabootug sëñ Tuubaa gi waaye nag fam bàyyi woon rek la sëriñ Saaliw njugal ndigal cuun sofe di barkeelu ci loolu li ci kaas bi bu dee dëgg rek li ci baraade bi dëgg la yoonu murit continuité la yoonu murit sof la du sos dañ koy sof fam bàyyee woon rek cuun foofa ngay tàmbalee ngay koo xam ni bi fi jógee ba tey noppaluwoo xel kom noppaluwoo ndigalu sëriñ Cheikh Saaliw noppaluwoo ci masalikul jinaan noppaluwoo ci gàmmu gi noppaluwoo ci weeru koor tëbaski ba ci bis bi nga xam ne amul lu dul moom kon noo ngi ñaan toogaay bi yàlla na yàgg na yàgg lool na yàgg lool liñ ci gën a neex mooy yiw gi personnalité bi dingité bi mais nag intellectuel bi mu doon waaye na dégg waaye bërigo nag moom bu feesut lay yëngu waaye bërigo deux cent litres soo ko doon yëngal mën naa bañ a bari bruit bu dee dafa am deux cent litres ci biir waaye na bu demee ba vidéo rek karang-karang ja naa bari moom mu xam ni sëriñ saaliw te bi fi Seex Béthio di nekk la ànd moom di làq ngërëmu Sëñ Saliou neewul sama bàyyi Seex Béthio naa ko bàyyi gif yi déedéet daa ñëw doon bàyyi faalam di ko liggéeyal fi ne mettiwut ci moom parce que dañ ko cee nampatal lu mu lu mu lu mu tarbiya day faral di ma wax ne donga yim joxe woon ca daara ja sax man joxewu ma waaye daa mujj man maa leen gën a sonn ndax man maay baag ci daara ji laa mujj nekk <laughs> Cheikh Béthio nag moo toll noonu kon ci wun bis bii nga xam ni màggal deux mille vingt deux ana lam nga ci mën a jox taalibe yi ñu def ko ab yóbbal yóbbalu màggal seen télévision tubaa TV ak sa mbokk ma Alaaji Mbàkk yu mi lay nuyu. asalaamaaleykum wa waaw maa ngi leen di fay bu baax te bëgg lool ci seen teewaay ci ñëwub télévision Touba TV fii ci Jannatul Mahwa eh, di ci sa yow sëñ Mamor maa ngi lay jaajëfal di la sant bu baax di bëgg lool te nuyu ñi setaan ñëpp di sant sëriñ Touba bu wér nag waaw di sant sëriñ Touba te yëkkati kàddu di beral nuyoo Serigne Muntaxa ñaan mu yàgg fi téwér sëriñ bi day sant ko rek nu war ngi ñaanal sëriñ Cheikh moom sëriñ Saliou mu yàgg fi téwér di ndokkeel njabootuk sëriñ Touba gépp rek ci bisam bii dellu bis bi nag mooy sunu mooy sunu bis bis bii moo gën ci ñun tabaski bis bii moo gën ci ñun lépp lu bis bii moom la sëriñ Saliou ni woon sëñ beccu def naa bis bii muy sama bis sa bis bii muy sama bis bis bii nga xam ne sëriñ Tuubaa ko moom nga xam ne man sama màggal def naa ko muy sag màggal yow sëñ beccu loola nag ba mu ko koy wax day mel ni bokk na ca la taxoon mu koy wax liggéey bi nga xam ne mu ngi jëm ci màggal jëm ci sancaan booba ci ay jamono sëñ Béthio da daan togg di yóbbul sëriñ bi màggal fii yëpp ay mbana lañ ko daan def togg yenu booli yi wutali kër sëriñ Saal bernde yooyu la sëriñ bi daan def ci jumaa ji ñu ko daan yóbbu ci kër sëriñ su mag si di ko joxe ñi nga xam ne jàpp nañ ni yelloo nañ ko ñuy dem di dem ba yàgg mu ne ko nag def naa màggal gi muy sa sag màggal sama màggal del del togg di joxe sancaan yi looloo indi ñuy bernde at mu jot bu màggal ñëwee ñuy jël sancaat yi di leen di leen berndeel loolu ndigal la woon lu bàyyeekoo ci sëriñ Saliou ndigal loolu nag day woy ba tey ñu ngi ñu ngi fii nag di ci di jéem di karkaral ak góorgóorlu ndax moom day xam naa ni wutu ko yombul ndax Serigne Saliou jaar naa ngi moom foo xam ne defal na ko loo xam ne dootul yomb mu fay jaar ak kenn waaye nag sëñ Tuubaa de amul tànk ginnaaw waaw gën naa loolu nag gën naa dal sama xel keroot bi ma ne Serigne Cheikh ñaanal ma ba diggante boobee Serigne Saliou ak Serigne Béthio liggéeyam boobee mu ko daan liggéeyal bëgg naa Mbàkke liggéeyal la lu ni toll baalu ko mu ne mën na nga ci rafet njort ndax Serigne Touba amul tànk ginnaaw kon nag te loolu lépp buñ ko dee sàkku dëgëral liggéeyam bi rek ak wane ni moom day liggéeyam ba mooy liggéeyub Serigne bi rek. te sëñ Tuubaa moom amul tànk ginnaaw kon nag ñu looloo tax ñu ngi ci di di di di di ak a góor jéem a def suñu bopp ay taalu bi rafet na ci njort nag ndax ñu ngi ko ànd ak kilifa yoonu murit ñu ngi ko ànd ak sëriñ Muntaxa ñu ngi ko ànd ak sëriñ Cheikh ñu ngi ko ànd ak sëriñ Bass Abdou Khadre sëriñ bas maa ngi koy nuyu di ko siyaare moom it di ñaan sëriñ Tuubaa yàggal ko te wéral ko ndax moom sagub yoonu murit sëñ um, Bass bu yëkkatee kàddu ah. ñu sagu ci bu yëkkatee kàddu ñu xam ni kii day sëñ Tuubaa koy wax la ah. loola ñëpp xam nañ ko ci moom miin nañ ko ci moom ñaanal ko rek lañu man ndax loxoom ci ñun jàppaleem ci ñun eh, day mel ni yëg nañ ko bu baax a baax a baax te di ko ci sant ah, maa ngi sant mbokki taalibe yi yi nga xam ni ñu ngi ko ànd ak man it muy sama taalibe yi bopp yi di di di taalibe sëriñ bi di di di sama jëwriñ yi nga xam ni ñoo ŋànk liggéey bi booba ba tey rek ñu ne ci waaw ba màggal gi mel nii mu mel ba ndam yi fës liñ fi dàq ci ay nag mel na ni mësuñ koo dàq ci ay nag booba ak léegi waaw image yi ñëpp gis nañ ko waaw waaw kon nag day mel ni mm. eh, lawoon tey la gën a gën a gën a nekk tey jii la gën a neex waaw moom fa mu ne ma jàkk te foofee rek lañu ñu doole wër na ma ni daal moom yëf yi boppam la te ko téyel boppam ñu ngi sant bu baax di ñaan ñu teewe ko déwén te déwén dàqal nu ren te suñu yéene ci liggéeyal sëriñ bi mu matalal na ko barke sëriñ Saliou télévision Touba TV moo ko gis ah, bi Mbackiou Faye maa ngi koy jëwriñ Mbackiou Faye maa ngi koy nuyu te di ko sant bu baax day mel ni tey sax jokkoon naa moom ci buum gi ah. waxtaan nañu lu yàgg eh, ah moom dafay sama mag di sama lépp ah moom moom télévision bii waxoon na ma ko ne woon na ma dinaa dinaa jël télévision bi ñëw couvrir lépp noonu moo waxee la ko defee umpante wuñu ndax mooy sama jëwriñ di sama mag di sama xarit waaw ah, maa ngi yedd feddali lépp rek di façade coloré bu baax tey ñaan suñu borom yàggal ko fi wéral ko ba yéeneem ci liggéeyal Serigne tubaa mu mat. sëñ Saliou Thioune doon laaj lan moo ko gën a neex ci àddina lan lay xa xanaa nekk bi ma nekk ci sëriñ Touba doon ab taalibe. Hmm. waaw di jëfe ndigal di bàyyi tere. Hmm. loolu de ma gën a neex ci àddina. ban bis ci àddina. Eh, bis bi ah bis bi ma dàqal bari na de ndax bu may fàttaliku bis yi ñu daan saafonteeg Serigne Touba Serigne Saliou waaw ci jamono. Hmm. nga xam ne booba damay gën a féete ndaw. daan ànd ak sàmbaay di ko fekk ci daara yi hmm. daara yi lagan wala daara yi xabaan wala daara yi got wala daara yi waaw yi cosaan yooyu day mel ni bis yooyu day benn dàqalu ma ko ci waaw jërëjëf <laughs> euh, fekkoon na sax ñun lii tawféex la démb bi nag yi romb daa fekk ñuy génn eh, jël ñun ñu am suñuy image ñun waaye gërëm la gis lañ installé ñun waaw résidence bi kon jël ngeen ko ci lañ ci ñu am ko nag salaam